di ko liggéeyal. Ah, loolu laa wax de. looloo fa am Serigne mooy sëriñ bi ku dul sëriñ Touba taalibeem nga ak lu sa may rëy rëy taalibe nga ci moom. ndax li mu def ci yow bañ lay topp bu ko rocc woon kenn dut la topp. dëgg la te nee na kat li may def ci nit ba nit ñi topp ko su ma ko defoon ci garab ñëpp toog di jaamu garab gi duñ fa jógati. te dem naa ba julli ñaari rakkaa gën a jafe ci man def lool ko ne mu tofal la mbooloo waaye maam Cheikh Rafal faaw réew mi xam fi mu nekkoon. day am ñu may laaj ñàkk julleem ñàkk julleem waaw waaw mat naa leeral te mat naa leeral dafa am julli ku am ci njaarim Sërif Asan Faal ngi toog rakkam yu baax yi toog ak doomam yi Baye Seex Ndaw a ngi toog te Baye Seex Ndaw wàllu wu am doole la lool Baye Seex Ndaw maa ko dafa gane àdduna maam Seex Ra Faal ko tudd tudde ko boppam dal ni aar ah, doom gis bi dafa teel ci moom dara ump ko fii lay toog di gis li xew fii ak fañ jëm moo tax kii kat bu suñu borom teel te wàññi gis bi bu yàggee ci àdduna dina ëpp lool moo tax indiwaalewul ay gët. bët yi daa muur woon daa muur woon parce daa rëy gis. daa lu mu xam lu mu seen xam ko kookoy sëñ sëñ seex ndaw bu njaaree. dëgg la waaye seex ndaw moom. keroog daa am ko laaj ca mbooloo ma ni. nun kat dafa am ci suñu mbooloo ñu tudd ay baay faal tey julli ak a woor di nëbbutu di ko def te nu bëgg mu leer. ba mu koy laaj Serif Assane di pour mu wax ci bàyyi Seex Ndaw ni maa koy tontu ndax Seex Ibrahima wax gémmiñam sama nopp direct maa koy bës benn guddi di ko bës ba mu yàgg mu ne kooku Seex Ndaw sama mos ma ne ko waaw faal mu ni bu ma kenn tuumaal doom terewu ma kenn julli terewu ma kenn woor bu ma kenn tuumaal doom terewu ma kenn mu julli terewu ma kenn mu woor waaye nag yàlla mi wàcc julleeg woor yàlla moo ma woo foo xam mag moom képp a wéet mu ne ma topp ma la boru julli topp ma la boru koor yàqu aju ci yow boo ko defee du ma la ci fay dara doo lu ñu la mayul nag dangay bàyyi mayu jàmbur te nekk ca la nga war a ne waaw loo mënul am na ku ñu wax sëñ Mor na Si hmm. sëñ Mor Amina Si dafa ñëw ci sëñ Touba li may waxit ku dem ci téere sëñ Alxaaji Mbàkke fekk ko fa mu ñëwee mu ni sëñ Touba ñetti laaje ma fi indi benn bi dama laa bëgg a laaj jàng alquran ci di xool téere bi di ko ubbi ak toog di tari bu ëpp yool hmm. bi ci des dama lay laaj ni nga fonke chariatul islamiya ak ni nga xamee diine ak li nga yilif ak ni nga bëggee yàlla ak ni nga mën a jullee ñàkk a julli Cheikh Ibra ak ñàkk a kooram bëggoon naa nga leeral ma bi ko ñetteel man de du ci yow laa jébbalu waaye ki ma jébbalu ci moom dinaa toog parfois at du ma ko mën a gént wala benn yoon laa ko ciy gént te yow ayu bis bu jot ma gis la guddi bëggoon nga leeral ma dañ Tuubaa ne ko bisimilah ni ko li tax foo toll di ma gis yàlla damaa jox jamono moo tax damay boroom jamono may xut bu zamaan moo tax foo toll di ma gis beneen laaj bi may laaj muy jàng alxuraan di xool wala di ubbi bu gën wala di ko tari jàng alxuraan ci mushaf bi di ko ubbi boo ëpp doole ndax soo koy jàng yàlla day fay làmmiñ yu koy tudd di fay gët yi koy xool di fay loxo yi koy ubbi kon yor kaamil bi di ko xool moo ëpp tuyaaba amaa jëmmi Ibra Faal li nga ciy laaj nag na nga xam ni ñàkk a julleem ak ñàkk a kooram ñàkk gëm yàlla yóbbeewu ko ko ñàkk a julli Cheikh Rafaal ak ñàkk eh, wooram na xam ni ñàkk gëm yàlla tegu ko ko la ko teg moom xam na ko yàlla xam ko ma xam ko na nga ca maan yekkub jàmbur ku ci sa biir daw danga ngaa waane ah, wax dëgg yàlla kon ku ñu dong waaw kon nanu xam ni hmm. maam Cheikh Rafaal làmbutuwul dafa hmm. daj maam Cheikh Ibra nag la yoon wi xam nañ ko ndax wax nga léegi ñi mu jël ci njaboot ci sëñ Basiiru kenn gënu koo dox sariyan ci àdduna bàyyi sëñ Muntaxa ku ko ëpp xam-xam amul te nuy gën a maam seex Ibra Fall bis ci kees maam Cheikh Ibra Fall moom ba tàkkusaan jot sëñ Basiiru bëgg a julli maam Cheikh Ibra Fall ni ko Cheikh Mouhamadoul Bachir da ngaa bëggoon a julli mu ni ko waa xanaa ma abal la der nga julli te nga ñaanaaleel ma dalli xëcc der jox ko sëñ Basiiru jël der bi mu ne ko der bii ndax xam nga bu mu doon sëñ Basiiru ni ko bëgg naa koo xam mu ne ko keroog sa mag ju baax gi sëñ Moodu Moustapha ba mu ganee àdduna gàtt ba ca sëñ Touba toppatoo ñu toppatool ko sëñ Moodu Moustapha der booba bi ñu ko feesee ba noppi der baa nekk nii man la ko mayoon ma barkeloo ko beneen der ni ko ndax bii xam nga bu mu doon mu ni bëgg nañ koo xam mu ne ko sa mag ju baax gi sëñ Fàll ba mu feeñee ca rajab bañ ko tuddee ba noppi der baa nekk nii man la ko sëñ ma joxoon maa ko barkeloo génnewaat der ni ko ndax bii xam nga bu mu doon mu ni ko bëgg naa koo xam keroog ba ngay feeñ fekk sëñ Bàmba ci liggéeyam bi biñ lay tudd sunuy nopp gàtt biñ la tuddee der baa nekk nii man lañ ko joxoon ma koy barkeloo julli ci ñaanaleel ma la ilaha illallah Basiiru julli ca jox ko der ba ba mu tëddee guddi xëy suba dani sëñ Basiiru mag la der bi mu jullee ci laa fanaan démb di ci barkelu waaye mu ngi doon wër sama néeg bi di ma ñaanal di ma xool rek kon dafa am yoo xam mënoo cee étape bi ndax xamoo ko jotoo ci. loo xamul maanu ca. te raw ñëpp moo ëpp ñëpp ak taalibe. Hmm. xanaa xamoo ne Cheikh Ibrahima ëpp ñëpp ak taalibe. sëñ Maodo Moustapha da koo nuyu si. kees mu xëy daal ni tey doomi sëñ Bamba jëy ñëw di ma seet si sëñ Maodo Moustapha daal ni aka aka xam sëñ Touba ko yebal aka xam daal ni weeru koor ji la sama sañ-sañ jëpp moo tax sëñ Bamba yebal ko am na lu may liggéeyloo. maag moom daal ni waaye doom da ngeen dem gàttandul ma sama doom ji ñëw sama sëriñ bii ñëw di sëñ Modou Moustapha la ana ñan ñoo ma koy jëli jil dañ takk naaru góor yi jëli ko ñuy dem di takk naaru góor yi pour jëli ko mu ni doom lii lu mu doon ñu ne ko faal yaa wax gi takk naaru góor yi jëli ji sëñ Modou Moustapha ni ba may wax naaru góor yi taxul naaru góor yi def aw fas man naa suur ba bajantu bu daanalee doomu sëñ Tuubaa ji lu may lay yii naaru góor wóorul indi leen ma karos ñu teg ko ci sama naaru góor yi na ñaari ponkal jug takk karos bi ci seen yaram yenu jël ma sëñ Modou Moustapha sëriñ da Ngom moo jug seex da Ngom ak sëñ Modou Diop ngeen ñoom ñaar ñoo gàddu karos bi ci lañ teg sëñ Modou Moustapha bi mu leen gisee dañ lii lu mu doon ñu ne ko bàyyi bi Ibrahima yónnee mu ne ak rëy ak taalibe kon yoon wi faaw nu xam kanay maam Cheikh Rafal nu warmal te moom kat taalibeem rëy na ba xanaa xamoo fi ñu denc Cheikh Ibrahima ci Touba. fa la sëñ Tuubaa njëkk sëpp jëwam bi di fa julli tàkkusaan feeñu ko denc maa la ko wax bisimilah rahmaani rahiim jàmm fi maam Cheikh Rafal tëdd Serigne Touba fa julli tàkkusaan bi muy door a sanc Touba maam Cheikh Rafal ni ko Mbàkke fii nga doon jullee ndax may nga ma ko dama la koy dagaan mu ne ko rafaatal naa la ko may la ko mu ne ëllëg fii lay tëdd bi mu wàccee liggéey la 3 mai 1930 foofee lañ ko denc te bi mu fay dem dafa wax ni su ma wàccee liggéey gis nga yoon wi am na nu mu duróog loolu doxinu yenant beeg Seydina Aboubacar Saddiq ñépp maase nañu abu sëñ Moustapha Mbar bi mu tollee ci sukuraat Seydina Aboubacar Saddiq dani su ma génnee àdduna na ngeen dem ba fi mustafaa nekk ngeen ko sa xarit bi mooy ñaan ndax mérité na tëdd ci sawet wet te bu leen ubbi benn bunt te bu leen ubbi benn bunt te jël bunt yeeg fenêtre yëpp waaw yuuxu ko ngeen wax yanantu bi ni ko abou bakar su mérité tëdd sawet mhm. na fenêtre yi ubbeeku mu fekk si la xabru ah, baa nga ne su fekkee nag mérité wu ko bu benn fenêtre ubbi ko wala benn bunt nañ ko yóbbu ca sëgee moom ñëppay baqiya te xam ne na ba nu ñëwee ba taxaw ni ko mhm. sa sang bi mhm. sa soppe bi sa taalibe bi sayduna abou bakar saddiq moo doon diisu tëdd sawet yow moustapha bunt yëpp ni tell waaw ñu dégg dammool Habiba ilal Habibi waaw jël leen bi yóbbu ko ci soppe mu tëdd fa. maam Cheikh Rafal bi mu wàcc liggéey dani doom su ma wàccee liggéey na ngeen mm-hmm. xool Serigne Touba bu dee bi mu wàccee liggéey 27 da ngeen koo gasaloon 3 man na ngeen ma gasal 6 mètres. lu tax damaa bëgg ma koy féete suuf rek ba ñëpp xam ni mooy sama sang. dëgg la daal ni asamaan ak suufa fi nekk sëñ Bambaay sama asamaan maay suufam yàlla fa mu nee rabb samaawaati wal ard la ci teg. maa loolu ku di xool sëñ Tuubaa ca kaw man may suuf si daal li suuf nag baaxoo na lu waaye am ci lu bon sànnil ko waaye boo gasee ba ca biiram lu weex tàll lay génne lu baax man Ibra Faal lu waay jët jot xëpp ma waaye ku dugg sama biir defaru rek ngay def ñu denc ko foo xam ne tey yàlla defal na ko sutura aw xur la sëñ Tuubaa nekk fa montagne moom mu nekk ci xur moom nga jàkkaarloo nii moom ngeen jàkkaarloo nii sëñ Musaa Mbar moo ci nekk illa la maam Cheikh Ibra

illa la maam Seex Ibra ful buur dee ci dëbbe la ilaha illa la maam Seex Ibra ful buur dee إلا الله ما أنزل إلا كل قردة نبيها لا إله إلا الله ما أنزل إلا كل قردة نبيها فلا إله إلا الله ما أنزل إلا كل قردة نبيها لا إله إلا الله ما أنزل إلا كل قردة نبيها إلا الله من سخر كل بود النبي لا إله إلا الله من سخر كل بود سخر رفع لا إله إلا الله من سخر كل بود النبي لا إله إلا الله من سخر كل بود النبي فلا إله la maam Seex Ibra fu la nguur te dina la la ilaha illallah maam Seex Ibra fu la nguur te Seex Ibra Fall maam de Ibrahima Fall fu la nguur te dina la maam Seex Ibrahima Fall fu la nguur te dina la maam Seex Ibrahima Fall fu la nguur te dina la maam Seex Ibrahima Fall fu la nguur Cheikh Ibra Fall maam Cheikh Ibra Fall fu la góor ba ànd di dëbbee maam Cheikh Ibra Fall fu la góor dee di dëbbee maam Cheikh Ibrahima Fall fu la góor dee di dëbbee maam Cheikh Ibrahima Fall fu la góor dee di dëbbee Cheikh Ibrahima fala ilaha illallah la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah rijalullah la ilaha illallah la ilaha illallah def leen ne ñu màggal Cheikh Ibra Fall la ilaha illallah la ilaha fal ya rab fal la ilaha illa la la ilaha illa la borom baax la ilaha illa la la ilaha illa la

لولا